dom di ci mëna a juddoo nga gisaat wal xanjaan yi am ñaari geen <laughs> yooyu bahun. yooyu it bu ko nit ki amee jafe-jafe la pour mu mën am dom. pour ku góor ki mën a sëy ku jigéen ki ba doom mën cee judd ndax dañoo normalut mooy lañ soxla pour nit mën cee juddoo ñoom dañ koo amut ba tey it bokk na ci ñenn ñi dañoo am problème di sey moo tax nit ki di sëy lu bari danay am jafe-jafe ci moom ba tax du mën a jur ay doom yu bari moo tax ku la gën a ëpp lu muy def distance ci wàllum sëy rek jaxasoo rek moo la gën a ëpp pour mën a am ay doom normal koo xam ni bis bu set yaa ngi ci say wallax njaat dadul formé wu sax bay mën a jur doom loolu lu mat di bàyyi xel la kon sorel gi mooy li gën normal ba tax nit ki mëna sey normal pour yalla mëna dogal dom mëna am ba tey it ñenn ñi walum emori tamit japp na len ba indi len ay jafe-jafe ba tax ñoom it ñu am problème ba mënuñoo sey normal seeni ay walax ñaan yi tax mu mëna organiser wu pour dom mëna am lolit it it na len kon lolit lu mat di baye xel bu baax baax ba tey it ñenn ñi dañ jut jëfandikoo ci yoo xam ne day baax ci ñoom pour mën a lekk pour seeni vitamine dolliku ba seeni doom yi walax njaan normal ba tax ñi mën di say normal pour doom mën cee juddoo ala kulli halin loolu lu mat di bàyyi xel la lu aju ci wàllum gerte kemb baax na lool gerte kemb ak ñambi ju normal ji nga xam ne kenn rosé wu ko yenn produit yu bon yi ba tax mi def ay jeexital ci dund nit ki yooyu it ku koy jëfandikoo yalla man nay dogal inshallah rabbi soy sëy eh, dañ ci am njabot go xam man na barkel hmm, léegi nak bu yalla dogalee li lepp mat nak bu agge fi wara ag yalla muy maye wala yalla mi bind dana dogal kooku man na ci juddo kon nit ku ci nek dafa am ay condition na goor ñi nak condition yi ngay seyé pour mëna tax nga mëna dogal yalla mëna dogal dal nga am dom normal ta do am benn jafe jafé ku matalul condition yi nak mën nga yek sa bop ni di daan di génn mani wi waye jappal ni dom dula yomb ta febar bobu ñu bari nak dañ koy jël jox ko jigen ñi mais ñak am dom kon lolit lu bari lay dal kon mor digen gis jigen go xam day sey ci ay at amul benn feebar fekk na waa ji condition yi tax ñu war a matal pour mën a sëy ba doom mën a judd mu matalu ko moo tax ku jigéen dafay jóge dem ci keneen dafa def sax ñaari dafa def sa at am doom parce que kim dajal dafa yor normal kim njëkkan ndajal nag daa yorul normal ba noppi bëgg a gëm ne jigéen gi moo yorul lu baax loolu day faral daal suñu mbokku jigéen ñi nga leen ci yërëm ba bëgg a dee ñuy sonn lool góor ñi teg leen ay jafe-jafe. ba tey bokk na ci xeeti vitaminaat yi nga xam ne ku koy jëfandikoo incha allah yàlla mën na dogal sa wàllum ay wallax njaan dina dolli ku baax ku koy jëfandikoo eh, dina la dolli vitamines yu am solo say wàllu ay wallax njaan ku ko man tamit del faral di wut jinjeer jinjeer soo ko mënee baax na nga di ko wut di ko booleek lem di ko jëfandikoo loolu it mbokk mi baax na lool ku koy jëfandikoo incha allah rabbi yalla man na dogal sa walum ay vitamine moy sa walum ay danai njaan danay dundu ta dina normal normal go xamne inshallah allah rabbi da sëy di am dom normal su fekkente ne mbokk mi nga xamne ne japp na la ngay dem faju ji hémorroïde ndax say domi normal ba tax mi meuna jur dom batay tey nga xamne walum mo la gar ba tax say doomi wala ñaan normal tut tut jur doom da ngay dem nga faju hémorite def traitement bu normal yalla mën na dogal inshallah allah rabbi nga am doom ci jàmm ba tayit ko xamne walum wàllum dolleeku moo ci yow ngay dem jëfëndiko li tax nga mëna a dolliku ci walum katan wala walum doole inshallah rabbi ba tey bokk na ci jafe-jafe yi nga xam nit ki waru koo sëyee nit ki jamono ji ngay sëy tamit bul naan ndox mooy sëy ba noppi naan ndox baaxut ku koy def moom it ndox mu sedd moo ci rawati sax sëy ba noppi wala di waaj sëy di ko naan loolu baaxut loolu ay jafe-jafe lay jër ci ku góor kii ba mën na koo téye am doom ba tey sëy bu bari genn guddi nga sey si ñetti yoon wala ñeenti yoon loolu dalay dol dalay dol dalay néewloo kàttan ba tax tamit la nga mëna mëna ko baña mëna ba sey ñaan man na baña normalati ngay baña am dom normal ba tay naan ndox mu sedd baax ci goor ñi nañ koy bayyi bu baax di sey di naan ndox mu sedd baaxut lu ci ëpp ko way def yalla mën na dogal sa awra mën naa dem ba delu am amna goor ñu bari jamono ci sa awra delu na te ñoo ko teg seen bopp xam naa dinañ ñëw incha allah ci ay jëmmi jamono ci ñi nga xam dañuy mballu mballu ak danger yi nga xam ne nekk na ci ak ko mën a moytandiku na nga ko ndax ngëneel da cee nekkut incha allah rabbi kon loolu it lu mat di bàyyi xel la baax a baax kon nit ki dafa am ay conditions yoo xam ne faw nga dajale ko pour mën a jëfandiku normal yàlla mën na dogal incha allah rabbi doom mën a juddoo ca sëy boobu kon fekk nit ki matalul condition yi mënu ko am deux virgule ba noppi quinze millions deux virgule ba am quinze millions ba noppi tamit nga boole ci amaat hauteur ba tool ne deux millions yooyu génn waat yeneen quarante cinq millions normal doom yépp buñ leen xaymaa noonu la war toll ne nen yi fan jëm war na mat quarante cinq million nee na quarante cinq millions yi bu nu àggee nag yàlla subhanahu wa bu dee doom yëpp nañ war a mel nañ ko yàllaay tànn ci ñooñu jël ci kenn def ko nit moo tax nit bër na ñoo àndal yàlla tànn la ci génn la loolu da ko war a sant yàlla bu baax a baax ndax quarante cinq million ñu tànn ci kenn mu génn ñi des ñëpp yàlla am fu mu leen denc loolu yàlla képp ko man kon loolu lu mat di bàyyi xel la baax a baax kon quarante cinq millions yi soo ko matalee nag tombanteeg vitesse bi nga xam ne dañ koy daw ñoom it mu toll soixante huit pour cent vitesse boobu gaawaay boobu su ko mat su su yéesee rek day daal di gaaw a dee mu su yéesee loolu rek du normal loolu tamit lu mat di bàyyi xel la bu baax gannaaw yàlla dogalee mat nag quarante soixante huit pour cent yi normal nag. lum néew néew néew na mat trente cinq pour cent trente cinq yooyu pour cent na su ko matee loolu it danay tax ñu xam ne lii lu normal la waaye nag ñu mën a diire nag lu tolloog une heure muy quatre pour cent hmm, yii nii soo ko dajalee eh, tombanteeg wallax njaan yi amul ñaari bopp ndax ñàkk normal bokk na ci mooy tax moom ñaari bopp ba tey ñàkk normal googu su ko ñàkkee normal day aju ci moom it mu am ñaari geen kon wallax ñaan bu normal doo am ñaari bopp doo am ñaari geen benn génn normal lay am pour jóge fa mu war a jugee jëm fa mu war a jëm te du am benn gàllankoor kon mbokk yi eh, sëy du caagi ne bànneex la wala daanu yëg sa bopp rek dama war a am doom déedéet kon am na lu yàlla dajale ci nit ki war ko gëstu war ko xam pour mëna xam ban vitesse la toll pour mëna jëfëndiku normal yalla nak mi dogal mu dogal ne inshallah allah rabbi ki ci condition yi matal nako ko kon yalla ci lay jël bind ci kenn kon neen yi dañu gaawa de dee wax nañ lu koy waral li tax mu gaaw a dund nit ki faw nga xam sa bop motax nit ñu bari xamul seen bopp daanaka dañuy dund ni rek waye lañu wara xam deug xamuñu ko te yii yëpp soo ko xamut da lay ay jafe-jafe yoo xam ne yaa ko teg sa bopp kon góor ñi ala xaalin nañ bàyyi jigéen ñi teg tawat yi jàpp ne jigéen ñi rek ñoo feebar te liñ wax nii lu ci ëpp ci góor ñi dal na leen ba tax dañuy sëy ba sonn rek waaye duñu am dara kon képp koo xam ne yàlla dogal na dem nga ba yëg ne lii dal na la dangay ngay jiima jël say matuwaay incha allahu rabbi nga dem faju ji soo fajoo ci kàttanu yàlla sun borom incha allahu rabbi yàlla mën naa dogal mën nga cee am njaboot gu barkeel mën nga cee delluwaat normal kon nan bàyyi xel bu baax a baax ku ci nekk rek mën ngaa xool yow ci ban côté nga féete kon